moom nga dëgg de man de nekkatuma fi sax nekkatuma fi sax man te naa ni daa taxaw bàyyi sa loxo tuuti rek bon man li ma fekkee bon mun naa fekk ma du du garaaw parce que dama ñëw benn grand bi moo woon ma kaay kaay nga xool am na lu xool dëgg bi ma ñëwee ma dugg ci biir unité service bi Australia and the family system. Well, for one minimum to work for. So they like it for. You can walk on the fair walk on the walk on the walk on the walk on the limit to take last one. Well, no, no, so we have to go to the government. المدينة godiya sallah tuma bon mo romb jube jube na tek sama xel laa ko quoi sama daal romb dem bu guddi daal leen toog bu ko teew sama xol bi tuuti après ci lañ ma woo wax ma loolu fan ñu tudd gene bon moom ban genre la moom moom ko mo ko la mi ngi ko mu li nga gis li nga gis dafa nduru agression wala li nga gis dafa nduru agression wala non ma dama ñëw rek ci biir kër dafa quoi temps bi commencé na way ko li ñu wax ne jigéenu wérul la woon dafa ne ko am sax loolu dama ko dégg rek sama nii la ma ko baax ñu ko léegi malgré ñu ma ko ñu ko mais amul na benn émission am pour wàllu agression boo ci leen nekk wala waaw grand ñoo bokk ñu def tawam parce que amul ñu wax tey indicé boo xam ne da am indice boo a njur wala ci fan moom man miinu ma ko dama fréquenté ci village bi yi quoi yéen ñu dëkk fii tey lu mel ni amee ku ne neex na la doo nit en tant que sénégalais non lii ku ne neex na en musulman na lu ñuy na lu ñuy naqarlu di wax ni ñun yàlla moo ñu gën a baax bu ne day musulman dama ne a baax yàlla moo ñu gën a bëgg doomu aadama te moom moo teral doomu aadama moom su demee ba wax ne ku rey nañ ko rey parce que seen yàlla dafa neex ku wax ñu naan non droit de l'homme droit de l'homme mais avant droit devoir ba pare on lui dit la vérité su dee moom moo perte nañu dimbali ci loolu te état bi aussi dëkk bi fi mu toll nii pour man lii ñu ñoo ko mën a fajal suñu bopp état du parce que da ngay génn fi dem ci àll bi rek sànq maa ngi maa ngi nee na Saalum gii boo bu la jàppee dañ lay taal même bu jeexul dina wàññeeku dañ lay tooñ nga fay am na loo xam ne rawatina li ñuy ñaan bi ñu jël seen disposition comprendre nga parce que dëkk bi wóorutul parce que démb laa gis benn vidéo femme bi dafay romb yor doomam am benn waay bu tub doom bi ñëpp gis nañ ko borom saret bi ñëpp gis nañ ko am na loo xamante ne neexul te loolu boo boo boo boo boo revendiqué ñu dal sa kaw mais neexul ñu waxante dëgg ban dëkk lañ nekk ah non kuréel bi moo war a ñëwaat. loolu mais sëñ bi bëggoon nañ la laaj parce nekk nii dafa nekk en face benn place publique te gis nañu place publique bi dafa am ay nit ñoo xam ne dañ ciy da leen di gis chaque fois ñu tëdd te xamuñu individu yooyu ñan lañu est ce loolu wër na. non ñun xamuñu leen parce que ñëw mu amul fu tëdd bu ñëw ci place publique bi tëdd nga ne doon tëdd parce que li ko dal ñu waa ñun dinañ dal. waaw amul kenn ku fi ñëw nga ko ñu dëkk ñu ñu la koy tere ñu ko def comprendre en tout cas daal ñu ñu ngi ñaan état bi dañuy dimbali parce que xaw Sénégal ñii bon mi ngi dem mais xamuñu fu mu mën a yem de mais bërëb bi waaw non loolu moom parce que li balaame mooy ñoo jël yor ak jël ay doomu aadama ñuy liggéey ci xaalis ak ñëpp xam ne insécurité am ci amul caméra de surveillance amul vigile war na mën a am benn agent boo xamante ni moo toog ci buntu ko ci buntu place bi comprendre nga di surveiller boo war a wàcc dafay wàcc moo fet ak ay mbokkam am na loo xamante neexul jërëjëf. waa ji la ñax ndayam bu baax ak ay mbokkam ñoom ñëpp. am grand grand kaay ñëwal Değil mi? Ben kalbimi yiyeceğim. Alayım, alayım, alayım. Onunla gel.